parce que Pikine da fera un rendez-vous avec l'histoire ku am baatin lay wax de Pikine moy Sénégal te Sénégal moy Afrique te Afrique moy l'avenir du monde kon affaire yi Afrique lay mujjee te ci bir Afrique Sénégal lay mujjee te ci bir Sénégal Pikine lay mujjee kon Donc Pikine restez debout restez fiers le meilleur reste à venir donc ma lay féliciter bu baax vais baax di wax rek li ñu war a wax dafa bëri moi je suis un maire verbomoteur li ci yéene beeg li ci xel beeg li ci li ma bëgg a sotti xajul ci benn émission woowaat ma vendredi prochain ak beneen vendredi tant que maa ngi bëgg a wax ak askan bi jamono ji euh, li ñuy wax naan ku woddoo lamiñ soo noppee rafle jamono ji wax laa jóg communication la jóg parce que j'ai envie de montrer que le chemin c'est ça je suis sûr que le chemin est là nit ñaa ngi may déglu ci pour ma joxal le chemin boobu jóg naa pour joxal leen ko sera sauvé incha we save together Pekin. ñun ñëpp ensemble nous sauver Pekin. il faut que ñu boole suñuy force mutualiser nos moyens waxandoo ci benn micro pour que ñu déglu ñu pour ñu respecter Pekin, pour ñu jox Pekin rôle pour que doomu Pikine nous jëriñoo Sénégal bi ñu jëm ci kanam ça va être un Sénégal de naataange mais avec nak ci lima bëgg la majorité présidentielle dirigée par Macky Sall motax ni may waxé tam ñu yaakaar né damay bëgg changer wala damay bëgg a sànni xeer dama bëgg full bi ñu wara jox doomu Pikine leader yi mel nonu baña nek ay waya waya yu ñuy yobalé dañoo am suñu place dans les cercles de décision pour joxé suñu point de vue en nous oubliant faté suñu am-am faté suñu bopp oublier nous soit ñun suñu bopp ñu fàtte est-ce que dañuy dem wala duñu dem mais ni Pikine dem yóbbaale ñu loolu laa bëggoon jeexle di wax rek nañu bëggante surtout suñuy leader dañ leen leen bëgg sànnante xeer bi dafa metti violence bi am ci Pikine ci wàllu match nawetaan ci làmb dafa war arrêter Pikine doit montrer aux autres jeunes que nous sommes civilisés mais waratuñu di sànni di yàqal jaamur nit jël investissement parce que mer nga ci politique wala gagné nañ sa ASC wala sax marché nul nga nga génn nga yàqal ko jigéen bi di dem nga xëcc ci greffage am wala nga këf téléphone am lor yooyu ñuy lor warul nekk Pikine nañ silvissé xale yi Sacré-Cœur yi defatuñ ko te ku ñu wax ñee ñooñu gën a silvissé nga mer nañu pikinois pikinois te actes yi ñu commencé di def c'est des actes barbares qui datent de l'antiquité nañu arrêté loolu violence bi commencé am ci Pikine façon xalé yooyu commencé juddu ni ci Pikine dañu wara wax ak ñom ñu arrêter cette façon de violence parce que nit ben yoon rek lay dé mais way bu ñaaw bi ñu bëgg indiwaat Pikine té ay doomu Pikine ñu melni ni Youssou Seck bañ lolu nan nañu fexé ba Pikine ñu wone du dortoir Pikine c'est une ville Pikine ñu diñ ñoo fi dëkk Pikine ay ndana na fi génn ana ndongoloo roi des arènes bi ama dem jëliko ko indil ko Pikine comme rëcc euh, euh nu mu tudd xëcc na ama euh, sen nous dem mu dem dóor booy bële euh, Modou nous indi ko ne Pikine la façon façon défi yoy la bëgg Pikine relever plutôt que buñu nous amee nawetaan rek police génn ci mbedd mi ñuy sànnante xéet yàq agressé lolu vraiment leader de la war nañ ci wax quartier war nañ ci wax man le maire de Pikine Nord j'en parle je dénonce cette violence qui se fait actuellement dans le mouvement nawetaan quitte à ce que ñu arrêtions le mouvement nawetaan si c'est source de violence c'est pas parce que je combats le nawetaan mais la protection des personnes et des biens est plus importante